que population yi nga xam ne ñoo nek ci zone riverain riverain des des ICS dañuy réclamer à ce que ñu indemniser leen ci barème d'indemnisation bo xamante ni dañ ciy waxtaan ba jubbo liñu ñu nemmeeku mooy ICS dafa ñëw ci population yi nga xamante ni ñoom la ñom la wara exploiter fofu wara jël sen suuf yi sans pour autant que mu proposer leen au moins ben barème d'indemnisation bo xam dina mëna compenser euh li nga xamante ni ñàkk nañ ko fofu donc liñu ñu nemmeeku mooy ICS dafa ñëw bëgg proposer benn barème d'indemnisation boo xamante c'est vraiment comme ni ma ko waxee dérisoire et insignifiant loolu moo waral population yi euh, mobiliser wu. voilà damay rappeler que ministre de l'intérieur bi ñëw na fii ñaari fan ci ginnaaw bi mu ñëwee pour xool si euh, population yi ak entreprise bi nan la population yi déglu ICS mon reconnaître na ni barème d'indemnisation bi dafa proposé dafa également que ICS une entreprise bi nga fi askan jeunesse emploi des jeunes ci euh, li responsabilité sociétale des entreprises defu ci dara reconnaître mais le seul point bi nga population yi ministre bi bëggoon population bi bàyyi ñu natt tool yi après ñu doga waxtaan ci barème bu ñuy faye loolu nak lay rappeler waat à tout le monde que population yi duñu ñu nangu di céder di joxé soufi té te waxuñ ñu barème d'indemnisation bi nga xamni mom lañ leen wara fay té barème bobu comme ni ni ma ko waxé sank dañoo bëgg mu nekk barème d'indemnisation bo xamante population yi danañ ci gis seen bop bien vrai que xam nañ ñun li ñuy exploité ci suuf yooyu ICS mënuñu ko fay mais ñun

pendant comme ni ko kii waxee sànq une heure deux heures de temps bi population yi wàccee ci terrain bi def marche ci lañ doog a indiwaat ndox mais dans tous les cas ñi ngi xamal ñëpp que ndox bi nga xamante ni moom la population yi di dundee bu ko ICS coupé population bi den wàcc liggéeyam dañ ko gàllankoor loolu moom fa ñu nekkoon démb foofu la ñu nekkaat ba tey jii euh, ICS limu impacté ci ay village ci commune Mawane barina mais yi nga xamanteni ñom la gëna a touché war leen a carrément

ñun population yi li nga xam ni moom lañ yaakaar pour dundee ko képp ko bëgg a jël te waxtaanoo ci ak population yi ba juboo quitte à nga jaar suñu kaw mais duñu mus a sede loolu la ñuy rappelé waat tout le monde waaw. jërëjëf Cheikh kàddu yi am na solo vraiment.